bu tegu ci kawam moo tax mu ji deltu ginnaaw waaye neexut ko de yéene kaay bi ne fi nii nag ñi nga xam ne ñooy APR authentique nga xam ne ñoo samp APR fañ leen a sacrifier maanaam xarum sarax ndax fañ leen fee bàyyi dem tànn ñeneen ñoo xam ne fa ñoo wàlli yaan si jiital leen bokk na ca Amadou Ba mi léeg si ko yéene kaay ne hee faa bëgg ngeen def ndàgg xibaar boobu du dëgg de Abdoulaye Daouda Diallo ba léegi nangoogu topp ca ginnaaw Amadou Ba déedéet fi mu toll nii fa ñoo toll ci jamonoy manipulation yaaw seetal gaañu fa ñoo jël photo boo xam ne fa yàgg lool ay a Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Ba fañ caa xàndoon boobu nag moom la gaa jël publier waat ko wane waat ko ci internet bi waaye du bu bees de te benn juboo doxul seen diggante ñoom ñaar ñooñu donte nag mën naa xam ñu juboo ëllëg vox populi na ko fa ni li nga wax ay dëgg de gis nga jamono ji wax lu du dëgg ay lijjanteeg naxaateeg fa bëri fi toll nii ndax biñ ne Abdoulaye Daouda Diallo nangu na léegi ma nga ca gannaaw Amadou Ba kenn ci jegeñaale Abdoulaye a Amadou Ba yaaw fa ngay xool bun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye Arona Dia Abdoulaye Daouda Diallo fa ñëwoon ginnaaw Amadou Ba te fañ ko nar a contrer te njiit réew Macky Sall waa APR authentique gi fañ ko waxoon na ko ñun ñëpp d'accord nañ ànd nekk ci gannaaw bun Abdallah Dionne ba ci Amadou Ba sax mu ñëw ñu jiital bun Abdallah njiit réew Macky Sall nag fa bañ na man Amadou Ba laa jiital te Abdoulaye Daouda Diallo ñaar fukki at ak juróom ànd na ko Macky l'observateur a mooy jaawa fa nar a xeex ak duura naka noonu duudu ka ca Casamance Aly Ngouille Ndiaye moom it Samba Ka lañ ko nar a ñu xeex ca Linguère Abdoulaye Daouda Diallo moom mënta ñàkk a xeex bu métti diggante mook Cheikh Oumar Anne ca Fouta bés bi yéene kaay ne gars fa ñoo fas yéene def ab dank ngir contre Amadou Ba fi mu nii fa ñuy ruuma daat ne Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye ña waxtaan pour ànd naka noonu fa ñuy xëcc Abdoulaye Daouda Diallo a août donte tàmbalee guñ ko enquête yéen a na ko faala ci yokkal xam na ñoo xam ne foo ñoo mënta am sax parrainage bu mat ndax problème bi njëkk am mooy fi ñu toj bëriwut maanaam benn diiwaan rek moo leen di xam wala ñaar waaye candidat boo xam ne Sénégal yëpp diiwaan bu nekk am nga fa doole bëriwut de yaaw fa ngay xool candidat outsider mooy ñoo xam ne daal suñ gañee fay bett ñëpp ndax seen mbooloo bëriwut sénégalais yi diwaan yu bëri xamuñ leen bokk na ca Pape Djibril Fall Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall Abdourahmane Diouf Bougane Gueye Dany enquête yéen a kaay ne faa yaakaar na ñii fa ñoo nar a fori new de duñ am parrainage te fañ leen nar a isolé <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne ubbite école ren bii ak njàng mi yëpp fa nar a xam ay jafe ndax ci la ñuy amal parrainage bi ci la ñuy amal élection présidentielle yaaw seetal Cheikh Mbaw ko si deb ci info yéen ne ñun dafa ñoo jaaxle ndax ren buy école di ubbi fekk na gaañaa ngi ci parrainage bi ñu ne déetewaay campagne baa ngi ñëw suñ paree ca campagne dugg ci élection yi pare résultat élection yi moo tax njàngum ren mii xana bi fa nar a taq suuf de laas yéen a dëggal ko ne ubbite école beeg njàng mi yëpp fa nar a xam ay rëq-rëq <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne Pastef fa ñoo dugal ab bataaxalu kalaame ca Cour suprême ngir ñu neenal tas gi nga xam ne fañ ko tas seen parti ba source ay yéen kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom Babacar Diop maire bu Thiès mooy ne suñu waxante dëgg Karim Wade képp ku ko mën a bàyyi mu bokk ci wote yi di ñëw nga bàyyi Khalifa Sall war ngaa mën a bàyyi Ousmane Sonko mu bokk ma ko waxee ca laas yéen kaay yor yor yéen kaay na ko faala ci ne candidat bi ëpp mbooloo ci Sénégal jamono ji muy Ousmane Sonko bokkut ca loolu xel fa a ko wax ca yéen kaay ba yow fa ngay xool fa wax na sénégalais yi fa jot ñu tànnal seen bopp seen président ñu bañ leen a forcer kenn wote yi fa ñoo war a bàyyi ñëpp bokk sonko ku dul sonko ci yem sénégalais fa ñoo mar wàllu yokkute ak yoon bu tëddee njaaxaanaay ba ci liberté nee na ku am sa bilan nag bu baax waroo ragal jàmmarloo ak kenn ci wote yi faneen fu jàmmarloo am mooy PS ndax ña ñuy wax IRAS fa ñoo corriger gàgganti Aminata Mbengue Ndiaye ñaawlu lim jël PS ne fa ñoo ànd ak Amadou Ba 2024 nee nañ PDS boo xam ne kenn gisul ko indépendant yéen a kaay na ko waa PDS ña ngay solidarité ñoom it ak réewum Maroc ca suuf sa fa yëngatu le point a kaay fa ñoo xamal ne Touba ca kanam tabaxagum nañu juróom benn post de santé ca dëkk bu sell ba di Touba loolu baax la ki baax nag di wax lu baax ci diine ji muy Cheikh Mahi Aliou Cissé tey Vox Populi ngir waajal gàmmu gi fa ñoo xamle ki nga xam ne tey moo yor kàddu Medina Baye di Cheikh Mahi Aliou Cissé borom xam bu mag libération moom fa ñoo xamal ne Fadilou Keita bu Pastef ba woon tey ci àjjuma ji lay jàkkaroog attekat ba ba tey yéen a bi fa ñoo xamal ne gaal yi nga xam ne ndaw ñu fañ ciy dugg bu di dem Espagne fi mu toll nii yëf yi fa takkarnaase fa bëri ba jéggi dayo yaaw <laughs> fa ngay xool diggante ñeenti fan ba fukki fan ak ñeenti ci weeru septembre fukki gaal ak juróom-ñaar jugee ko nañ Sénégal dugg ci géej gi ba yegg nañ Espagne xam nga ñaata ñoo yegg Espagne junne ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñaar bokk na ca ñoom ñaar fukki soxna ak juróom ak fukki mineur ak juróom maanaam xale yu ndaw l'observateur na seen gaal yooyu nag mbir yu garaaw fa fay xam ndax xam na benn soxna fa wax ne moom fañ ko doon violé tëddee ci gaal gi laata ñu yegg Espagne loolu baaxut laneen lu baaxut ci réewum Sénégal ne seen taux d'intérêt bi bu ñu la lebalee xaalis lañ cay teg fa bëri ba jéggi dayo Cheikh Kanté fa koo ñaawlu na état bu Sénégal nag ak njàmbaaram fa ko cee war a jël wane ko banque yi danañ rey sénégalais yi de lii yéen kaay ñu ko xamal ka ñu xamagud nag ka ko rey ak nu def ba faatu mooy ab xale lu góor bu am ñaari at fañ koo fekk mu faatu ci ab oto boo xam ne fañ koo abandonné maanaam oto bu baaxul daal yëf yaa nga amee ca Joal Fadiouth l'observateur moo ñu ko xamal abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci mi ak ci bitim réew